yaa dib sëriñ yaa di baay ak ndey di fajkatu lor cuuraay seytaane ngi nii dikk na cuuraay bi baax ci seytaane ak jinne yow mi am faru rab mbaa mu tere laa sëy wala ngay merte kenn du la def lenn mbaa nga am sax coro rab yow mi fooye sa bopp baa ngay tiit guddi wala sax ngay gént yu garaaw yéen ci nekk ci biir néegu sëy day cuuraay bii moo gën nemmali ndax nag léeg-léeg nga bëgg bëggal bégal taal cuuraay mu mujjee ci xuloo cuuraay jàmm li yegg si na jàmmi kër jàmmi njaboot kër gu amul jàmm ñuy féewaloo di xeex guddeeg bëccëg seen cuuraay ngi nii bu la jàppee sab cuuraay ngi booy am yaakaar ta sa cuuraay ngi say mbir lu ci siiw yàqu sab cuuraay ngi wooteel Serigne Jibril Niang ci 77 677 77 08 yal nan la am faaw am sa can Ndaw Samb ma yaatu na nga fanaane jàmm rek boo ma nuyu si ma nuyu si la ma yaatu yow dañ la wax sa jëkkër moo mag ah yow luy ndeyu boo yeewoo doo ñëw fekk ma sama biir ne nga fëgg ni ma ayaa ndax soxla nga café wala sa yére tilim na wala sa douche tilim na ma raxas ko déedéet man maay waaxu sama tànk ba sa néeg ñëw nuyu si la nga foog ne loolu dëgg la yow da sëy wala ngay def pourtant maa ngi fa doon ñëw de pourtant ba ma fekk si la sa néeg bu la neexee man yoruma dara waaye Nafi Mbaye yor na moom mu yor place moom moo lay dunguru ndax moom moo lay jox cheveux bu baax daal bu baax tissu bu baax moom nga faale waaye man faale woon waaye Nafi Mbaye man maa ko mag yaa may dégg damaa bëgg soo yeewootee sa tànk sama biir néeg nga laaj ma ayaa ndax am nga yére bu tilim wala bëggoo café wala ndox ma naan yaa may dégg te xam nga laa la yëgal comme ndékk raw na la ñoo nga attaaye heure añ jot na xamoo sa bopp booy hmm. booy kaa am na de kaa kaa bu danse kaa xew na si kër gi lan léegi wax ma lan la wax léegi dama bàyyi ay affaire de fen affaire de jaxase si. man su ma amee wax la te yow boo amee doo wax man tamit su ma amee kaa du la te man am naa sax benn mais waxuma ma doog waxuma ko waxoo kay nañ bàyyi. Eh, eh waxal ba pare ma doog wax kaa bi mooy Cisco eh, laa béy te muy wax téléphone. Rosé léegi dañuy dégg. Eh, yow yow moom da ngaa ngéwale te ëppal defal nànk maa wax nànk loo yuuxu man maa ngi wax yow yaay yuuxu doo def nànk. demal waxal waxal. Cisco laa bett buy wax téléphone man dégluwuma ko dégluwuma ko man dama maanu mais nopp amul kubéer ma dégg ko mu ne day takk ñaareel te jabar ji premier jour. Rosé amul fen Cisco ngi di wax si jànk bi. xoolal bu ma dugal de bu ma dugal de waxal nànk. bu fi yuux. yéen da ngay jàng fenn yow wax wax la. mu mu dooraat fii rek mu dooraat fii di da ngay jàng fen léegi Cisco di wax eh. si waxu jànk bi. sa xel moom si jànk bi de ma ne Cisco dana day takk ñaare premier jour koor lay sëy si te yow nañ arrêté épisode bi sa xel moom si jànk bi nañ wax. Cisco caga sa xel moom si jànk Cisco caga waxuma loolu de génnal foofu sa xel moom si jànk Cisco caga la. sa xel moom ci jànk bi war nekkul ci jànk bi xale bi dafa moole mm-hmm. <laughs> ah, la gis dama la bëgg dama baar de gis ey ey yow ey yow noppi gis la si aabi doxañu mbedd ruq yooyu mooy lan ay def naa nga ma wax la soo demee la nga koy tegal danga xool dangay def naa nag yow dangaa nooy def naa ko ay booy lii mel mburu mu tooy loolu mooy lan booy dañoo bëgg bu dëgër dangay ngay dem raay ko làmbatu ko naan ko booy booy ma maa ngi ñoo bokk ñoo bokk papa man man xaw ma lan laay wax si yow ñuul nga ñaaw nga dama lay expliquer rek loo ko wax soo demee. waaw kanam booy instant yi gàlle bi dama fay nekk mënuma lekk mënuma naan yow bien vrai yaa ngi wan moom lu ñu teg si gàlle bi nga lekk. mais doo xam inventé la rek ma ne ko booy man dama laa gis. ah danga maa neex sooy wax di ko raayaale naa si que la gaynde la rek yow kaana a yow ñooy wax eh, jaaro bi sooy bu ko yóbbaale fii eh, eh, saf na ja ah, simi ko simi bi jaaro na bi moom dëgër na man dama ma sinon da koy doxaan ndax moom caga li ma la nag na sama diggante man a yow soo ma fenalee xam nga xam naa Faraayam wax naa pare soo neexee mën ngaa jóg dem soo neexee nga toog waaye bul xam pare. yow yow. amoo jom si man sama këmax nga nam ma amoo jom si man waxati naa de ah waxati naa de. <coughs> waaw jarbaat préféré bi nga may rombee naan ma salaamaaleykum. pourtant nuyoo naa de. waaye yow da ngaa tey de lan moo xew. man de. Hmm. tonton Cisco. man de xaw ma woon ni sax ay doomu ndey ak doomu baay xew na mi xew ba tey pour man de xewee na bu yàgg waaye na ko fi indi. yéen ña. ah xanaa sama yaay na fi bay ak tata Aya. lu xew sa tataaya ba ci am. yëgoo kon. déedéet. fan yii yëpp duñu wax. duñu wax yow loo may wax nii lan moo tax duñu wax ñoom ñaar ñu ay mag rakk duñu wax loolu lu mu mënee nag. duñu wax de fan yii yëpp nag mu ngi bëgg a yàgg de. léegi lan moo tax loolu. xamal tax. Hmm. parce que tata nag moo tooñ sama yaay. Euh, parce que Nafi mooy sa yaay yow. ah, ah nekkul loolu. ma ah, lu xew. man nekkul dama damaa faral de walla dara. Ah. faraluma ye ñoom ñaar ñëpp faraluma ci kenn. Hmm. waaye sama yaay daa dem ci néegam. di waxtaan ak moom. pour mu may sa jabar waaw di waxtaan ak moom pour mu may la mu may sa jabar jàmm. léegi nag tata ayaa moom xam nga xool rek mu génne jikkoom bi. ay di xulóog moom. di xulóog moom xulóog bu métti sax lu mu ko lu mu ko yekkul nag amul waaye un viendra dinaa ko tontu sama bopp. <laughs> eh wuy ma fii yow xale nga kenn tontu loolu kenn bàyyi loolu man dinaa ko gérer man su ma jugee ñoom ñaa ñëpp dinaa leen woo ma waxtaan ak ñoom. man moo xamu ku ma xamu waaye ñëpp ci kër gi xam ngeen ma man boo leen ko boo leen réglé kër gi man maa koy réglé de. waaw na xam naa li moo di nga ko foogee ndeysaan ay kaf waaye na loolu leer nag laa wax. déet man kay gëm naa la léegi xool xam nu ñuy def. bàyyil man dinaa ko gérer naa ko régler ba mu ne cocc yow bul jaaxle. yaa ko man moom boo ko réglé wul xam nga moom koy réglé. jeex na d' accord amul benn problème doy na waar de. <laughs> ooy suñu yëf télé bi ñu moom. échéance nag a daw ñu dañoo soog. salaamaaleykum. yee ba la jéem ah. ci loo ne suñu yëf télé yow eh du yow laay waxal. bu ma laalaat de. nga ne la. ne bul ma laalaat yow la laala def ma lay nuyu faale ma tey da ngaa indi sa jikko. jikko nga bari nag yow. ci loo ne ani ani sama xarit. sama xarit. itam ñaata xarit laa fi am nag yow it xam nga man bu ma jógee rek moo ma yekkati yow yeah, xam nga moom sos yow ndeysaan waaw mooy sa seytaane eh xoolal dama lay ñuus léegi léegi léegi soo ma waxaatee seytaan du ma sa morom de xoolal man du ma sekkuma ay xale bu réew ay kaf de dégg nga yow ko réew nga yobaate ma yow ma may kafa yow da ngay aara wi yow nag yaa xamul sa bopp eh gis nga yow yow amoo kër xanaa amoo leen kër. yow naa koo gis si yow. mës naa koo gis a toog sa pooju yaay waaw sa am na jëkkër ah léegi doo toog seen kër sa pooju yaay. Eh. yow nga xaar ba am jëkkër. Eh, dama lay noo de yow xanaa man kafu ma su ma la xam nga yow sa yaay yaru la ndekete yaru la. te eh! ah. loolu ngay naan ne kafe nag. ak li ngay lekkee mburu loolu laa bëgg nga tëjal mu ko sa gémmiñ googu eh xolal man man mën naa laa bàyyi nga def lu la saf prière kanam dama soile waali wala Sidi Diop wala Baba Ma nga lëmbal foofu taxaw si kaw seen bi nga lëmbal nga lëmbal waaw waaye man nag mën naa laa may lépp mais xolal duñ na may benn nga jël lépp de mën mainin laa may nag lépp nga wax waaye sama yaay. Ah. do ko si dugal. man kon may rafet yaay fan nga ya man man maa lay bàyyi nga wax sama yaay man damaa ñàkkee fay fayda xoola man duma sama rom morom de dama bëgg nga dem wol ma sama xarit fi man aw affaire te fi buma fi laal sa yaay génn problème am te man sama gabar. ay 25 ans la koy xex xajuma ci yow rek leen dégg wax naa la ko. mooy yow yow tey nga réglé. waaw réew ba def sa kanam nga ndaw gog di ma saf rukk duus. yow rukudus. naa rukk yow seen kër nga nek mo sa di ma sa fermeture jupe man moom nag dama laa yem dama lay bañ a xas. Ah. dégg nga. Ah. te maa bëgg nag nga tëjee ma sa loo ngay naanee kafe. waaye eh, xam nga la la jeex. te nga génn kër gi. nga man ban ñàkk fay daane ci man ba bébé jéenaa mi di ma jokkar ñi. Eh, ma ah, gis ku ñàkkee nii jom. yow sa kër gi sa baay dama fee andi wala sa ndey dama fee andi. yee eh, xolal yow lu ma lay waxoon. duma sa morom dégg nga loolu laa bëgg nga def sa bopp bi. gis nga man wala xam nga xam nga man xale duma ma dépassé soo gisee waxuma la dara seen kër laal fekk moo tax dama la fiy ñuus sa yaay ñëw mu nokkaat ko eh! problème bi gën a bari te man sama eh! Eh. yow da ngaa def bu ñu naan sama yaay dama lay nokk de yemal balaa nit ñi di fi ñëw sa cëfa bu desee tàlli gis man nag xolal moo la mën a nokk yaay nag yow yow xale bu indi sa bopp problème wàccee ma sa baaraam yu bari yi ma sa douzaine ku duy ndaw eh dama lay nokk nag de nokku nokku waaw yow waaw man kii dama ko yow danga maa xeeb xanaa xam ne xale nga ma foog yow. dama leen ko fili xoolal dama leen tëral. danga ma waay danga maa xeeb. waaw sa gàttaay yow in fotu ndaa. tey ngaa toog. noppi rek naa noppi rek sama xarit ñu. su sa bu desee diis. ñàkk jom feebar la waaye yow dañu yow sax yaa est-ce que bindal nañu ko ordonnance ñàkk jom